Euh, amoon nañ tuuti euh, euh, gàllankoor ci Kéra ak ay semelles parce que dafa am lu ñuy wax pied creux maanaam donc ay semelles lay lay lay tax mu mun a am appui yu baax xam ngeen ne basket appui bi daf ci am solo mais def nañ lu nu mën suñu kéem tolluwaay kàttan. Euh, fi ci Rwanda ak sunu collègues yi nekk fi nga xam ne ay anciens wu Dakar nañ donc ñoom it euh, mobiliser nañ seen force euh, utal nu benn podologue mais malheureusement tey si suba semelle bu mu proposé du semelle bu baax non seulement du mesure yu baax yi donc hauteur bi dafa xawoon ëpp ndax ci dolli appui bi en fait matière bu ñu ko defaree du matière bu ñu gënal moo tax ñu delloo ko malgré que fay nañ ko xaalisam euh, Dakar tamit euh, on wa centre national d'appareil orthopédique nous avons un technicien vertement à moins de 24 heures dem ci barki dem ci goudi nan ko wax dem ci suba mu xey ci à 13h 14h paré won na semaine yi ba yonné ko suñu amna suñu ben collègue bo xamné ñu ngi tuddu Samba Gueye di président Ligue de Dakar du collaborateur au président Barakat Gueye moom day ñëw rien que pour une semaine bi donc jël na avion d'ailleurs tey suba incha allah suba dina egg si Dakar dina e, egg si Rwanda ci loolu tamit ñu ngi gërëm di sant corps e, diplomatique bi e, ndax muy corps diplomatique u Rwanda am ambassadeur u Rwanda Sénégal au Rwanda oo ay ay ay kii yoom naatangoom yi nekk Togo ak Aziz Abeba ba ñu repérer euh, valise bi wan nañ ko joueur bi di Piera nee na valise am donc fu mu ne nii ñoom tamit ñi ngi def seen kéemtu lay kattan pour ñu mun a jot ci valise donc am nañ yaakaar ne tey dinañ am euh, bu boo moytul euh, ñaar ba ñetti semaine Amna na bu ñu delloo moy bu Rwanda bi yaakaar nañ ni bu Sénégal bi nga xamni matière bu baax la dinañu permettre Piera mu am ñaari semaine bosom bu ñëwee tey ci guddi wala tey ci ngoon ak euh, bii di ñëw ak euh, Samba Gueye euh, fii ak suba si suba incha allah.